Euh, Borou 11h37 la ñu yëgal ne am na immeuble R plus 1 bu daanu fi ci cité euh, Cyprès fi ci département de Rufisque buñ ko déggee ci saa man ak gouverneur ministre de l'intérieur, intérieur ñu ñu déplacé wu joggé Dakar amouté ay sax mo tax ñu xaw a yéex bu ñu yegsee préfet bu Rufisque dalal nañu and ak aussi commissaire bi.

ci turu sama naataango gouvernement bi yëpp ñu ngi jaale njaboot yi ci am ay jafe-jafe di leen ñaanal yàlla xaare leen arjana ndax bu jógee ci condition yi métti yi am nañu yaakaar que yàlla na nga teeru ci àddina fi daw si di ñaanal aussi ñu ci jële ay gaañu gaañu yàlla fëgg leen yëkkati leen ñu dellu seen liggéey ñuy rafetlu liggéey bi nga xam ne sapeur pompier def nañ ko fii militaires yi def ko fii FDS yëpp force de défense et sécurité def ko fii yeneen naataangoo yu bokk réew mi aussi def ko fi loolu mooy Sénégal benn bopp la kenn mën na ko xar ñaar ñuy fàttali aussi que am na liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy amal président ne ñu gaaw ci lool ci wàllu protection civile liggéey nañ ko ba pare daanaka dañ ko war a jébbal euh, conseil interministériel jébbal ko président dans le cadre d'un conseil présidentiel yóbbu ko conseil des ministres ngir mën a jël ay dogalu mucc ayib ci wàllu protection civile ci wàllu bâtiment yi nga xam ne aussi dañuy menacer ruine am na liggéey bu am solo buñ ci amal ak administration territoriale bind nañ leen identifier nañ ko seen i gox ba remonté ñu information yëpp di fàttali aussi que lu mel ni bu amee aussi liggéey bi ci war état dina ko def mooy enquête dina am incha allah bu soobee yàlla tàmbali na ko incha dinañ xool lépp li nga xam ne moo ci xew ku ci def loo ci war te def yoon dina dal sa kaw.